ñaar yi des nag mooy nakira buñ jublu ku ràññiku wala loo xam ne xalam la ba noppi di mufrat te bu nee mufrat ci bunt bi mooy loo xam ne daafut ñu wut lu daaf kon baat ba ngay woo bu dee nakira buñ jublu ku ràññiku mbaa ñu ràññiku mbaa muy mufrat xalam rek da ngay seet lam war a rafaaye nga binaa ko ca loola bu dee ku ne at tamrin al awal xayin ràññeelal fil jumali ci jumla yi al aatiyati aji dikk nawaal munaada façon munaada ma wa bayyanta nga leeral al mooraba la ñu ihraab minhu ca moom wal mabniyi ak la ñu binaa wa nawaal ihraab yi ak façon ihraab ga wal binaay ak façon binaa ga tey boole rek ay woote yu bare bari ci jumla yi bëgg a dikk mu bëgg nag nga ràññeel munaada bu ci nekk ban façon la bu dee bu ñu ihraab nga wax ne bu ñu ihraab la te wax nuñ koy ihraabee bu dee bu ñuy binaa nga wax ne bu ñuy binaa la wax itam ci lan lañ ko binaa arrive xettali leen al baisina way tiisuña yaa ahlal muroaati yéen ñooñ bañ rus yaa ahla boobu munaada mu daaf la dañ ko ihraab te mi ngi nasabe fataa xarabat sona asamsu jant bi yaa saa imiina yéen way woor yaa saa imiina boobu dafa nekk nakira xawru maqsuuda daal koy nasab mu nasabe yaa ndax li muy jam mu zakkar ajib tontul duhaa yi sama woote bi ayaa mujjiba duhaa yow aji wuyu ji ab woote ba tey ayaa mujjiba mën naa daamu daaf la xub jàppal bi yeddi ci sama loxo yaa raximan yow aji yërëm béb duhaa faay ci way néew ñu doole kooku mën naa daa mu niru lu daaf la yaa shaahidaani yéen yaari seere yi ishada seere leen bil xadli ci maandu yaa shaahidaan dafa nekk nakiratun maqsooda dafa am ñaari seere yu ràññi ko yum jublu digal leen ñu seere ci maandu an si foo sedd leen al madluma kañu tooñ soo ko defee yaa xuddaatan yéen way àtte dangaa jublu nakira xayru maqsooda maanaam way àtte ñëpp dugg nañ ci soo ko waxee jublu ci nag way àtte ñu ràññi ko nag muy nakkiratun maqsooda bi mu wax léegi mooy nakkiratun xayru maqsooda mu yaa qudaatan boo ne yaa qudaatu nag muy nakkiratun maqsuuda tamaxal teeyal yaa naa si lan yow aji wàcc minal jabali bàyyi ko ci doj wi laatu xadib bul metiital alxayawaana dundat wa yaa fariidu yow fariid xudoo jàppaleen jawaa isakum seeni prix yaa faizoona yéen way gañee juudoo tabe leen yaa ahlal fadli yéen ñi nganeel asric takkal alxisaana faswa yaa xulaamu yow ngóor si yaa musaafiroona yéen way tukki te ahaboo waaj leen at tamrin attaani daa tegal ahada ahrufi nidaa yi kenn ci arafi woote ga qablal asmaai taaliyati wa alxiq ta nga yéegal kul lasmin bépp lisim bi jumlatin ci jumla munaasibatin bi aji yàlla su ma bàyyin topp nga leeral nawxa iraabihi façon iraabam aw binaahi wala ak binaam day bëgg indi ay baat yoo xam ne bu ci nekk mënees na ko woo bëgg nag benn bu ci ne nga woo ko soo ko wooyee nag nga far jàll ba mat jumla bu fekkee mun naa daama dañ koy iraab nga wax nan lañ koy iraabee buñ ko dee binaa nga wax nuñ koy binaayee abul fadli yaa abal fadli lay doon nekk nga ne yaa abal fadli qud bi yadi wala yaa abal fadli saaxidini xalaa muhimmati nga def ko nag abdul gaffar aw tur la ismail aw tur la xulaamaan ñaari xale xajoolun ab yàkkamtiwaakoon mujtahid aji farlu fi darsi yi ci ab leçon shaahidoona way seere xaafilun aji sàggan mutxilun aji xereñi amalahoo jëfam axool arab yi mbokkum arab yi yaa axal arab yi lay doon boo ko doon woo mu baddiroona way pasar pasaree dulmuroo ati boroom mbañum rus at tamrin at taalis da munaadan munaasiban fil amaakini alxaaliyati min al jumalil aatiya wa bayyanta nga leeral nawxa iraabihi façon iraabam aw binaayihi fee moom dafa andi ay jumla yu mat bëgg nag bu ci nekk bala nga andi jumla ba nga andi baat ba woo te xool ba xam baat boobu nga woo bu ñu ihraab la wala bu ñuy binaa la bu dee bu ñu ihraab nga wax nuñ koy ihraabe bu dee bu ñuy binaa nga wax nuñ koy binaaye niki laa takk sal bu tayel bal nga koo indi mën ngaa def yaa taalibal ilmi laa takk sal daa bàyyil al xuróora waruga mën ngaa def yaa ma xuróoru daayil xuróora nga def ko ci des nag irhamoo yërëm leen al xayawaana arihoo nofal leen xaylakum seeni fas ardi nampalal laatu amil bul yaakaar an najaaxa réussir wala at mi niki yaa xaafilu wala yaa kaslaanu yow aji tayel ji bul yaakaara at mi abshiroo bég leen bi xusnil xawaaqi bi ci rafetub mucc niki nga ne yaa saabiroona yéen way muñ ñi wala yaa mujj taxidoona abshiroo bi xusnil xawaaqi bi waxkuma atleen yéen ñaar bil xadli ci maandu niki yaa qaadiyaani wala yaa xaakimaani waxkuma bil adli laa tasxaboo bu leen àndoog al ashraara kies ya nasaluka danu la ñaan al xafwa ak baale wal maxfirata ak jéggale niki yaa rabbana nasaluka al xafwa wal xaafiya nga xool at tamrin arabia xool at tamrin alxamis jaalisi jaalisi ba ci at tamrin assadis moom tamrin fil i'rab la mu njëkkee namu dajun yaa raa yal xanam yow aji sàmm gàtt ya yaa xarfu ni daayin la mabniyun xala sukkooni raahiya munaadan la mansuubun bil fatxati alzahirati li annahu mudaafun man raahiya dafa nekk baat bu ñu woo nasabe ko fataagu fis gooy jàkkaar lool li tax ñu nasab ko itam mooy dafa daaf alxanami mudaafun ilayhi la majroorum bil kasrati aw zahirati aribil amsilatal aatiyata yaa waalimiina yéen way tooñ xawaaxibu zulmi mujj tooñ day wax yimatun aji bon la mooy lu ñaaw lay doon yaa sabiyaani yéen ñaari gone yi laatal xabaa bu leen foye binnaari ci sawara boo seetloo yaa zalimina dafa nekk nakiratun xayru maqsuda maanaam waytoo ñëpp dañ caa dugg amu ci kenn kuñ jagleel bàyyi moroom ma sabiyaani boobu moom day nakiratun maqsuda day ñaari xale yum ràññeel leen aaye ñu fooye sawara yaa aliyu aliyu laa tatasallaq bul ñàpp al asjaara garab ya yaa mujj hidan yow aji sonal nafsahu boppam kooku moom daa nurul laaf ndax nafsa da cee jokk ci mujj hidan te bu ñëwut maanaam mi du mat almamnoox min asarf dafa def ay xaaj na mu njëkkee al awal al alamu al mamnooxu min asarf al alamu xalam al mamnoox ba di buñ aaye min asarf ci soppi wala nga ne ci tanwin al amsilatu xaraat jàng na suhaadu suhaat asnaytu tagg naa xalaa suhaada ci suhaat zurtu wisite naa londona london london mooy capitalu angleterre jaa dikk na ab taalibu étudiant ba min london min london na bàyyi ko london shahadna jàkkaarloo na noog new york new york zahaba dem na asaayihu touristi ba ila new york jëm new york raaytu gis naa usmaana usmaan shakartu sant naa li usmaana ñal usmaan jaa dikk na ahmadu ahmad ataytu jox naa almukaafaata neexal ba wala fayante ga li ahmada ñeel ahmad ishtahara siiwe na omaru omar bi adlihi ca maandoom ga iqtadaytu roy naa bi omara ci omar mu jàllu si ci albaas ida taamalta boo seetantalee al asma alisim ya allati ya nga xam ne fii aaxiri kulli misaal yi nekk nañ ci mujj bépp misaal ba jatt nga fekk ne annaha naka ñoom alaamun ay xalam lañu wa ida aradta boo bëggee an taarifa nga xam an haadihi l alaami wali siilay xalam chey an mbir jadidan muy aji yees fandur xoolal ila kulli misaalayni jëm ci bépp ci yaari misaal maxan ñu ànd ñoom ñaar te jit kon nga fekk ne ànd suhaada naka suhaat xalamun alam la yadullu bopp dana tegtale xalaa mu annasin ci jigéen wa anna londona ak naka london xalamun alam la xayru arabiyin bopp du kojug arab ay li mu ci nam rek mooy àndahoo naka moom laysa min wadaxil arab yi déet muy bokk ci tëruk arab yi maanaam cosaanowul ci làngu arab wa yusamma def na ko tudde xalaman xalam ajamiyan bi ko jóg làkk wa ànd new york ak ni ka new york xalamun xalam la yetta àllëfu dana composé woo yetta àllëfu min kalimatay nit ñaari baat imtasajat yooyu jaxasoona ihdahuma benn ci ñoom ñaar bil uxra ca ba ca des fa asbaxataa te ñu mujj ñoom ñaar mooy bi fi xëy rek waaye mooy mu ñu mujj ñoom ñaar kalimatan di ab baat waahidatan bu di benn wa anna Usmaan ak naka Usmaan xalamun xalam la fii axirihi boobu nekk na ci ak mujjam alifun alif wa noon ak noon zaidataani yu aji dolli ko wa anna Ahmad ak naka Ahmad xalamun xalam la tushbihu boobu dana nuru suuratuhu meloom wa yumaasilu te yemoonteeg wasnuhu màndaxeem wasnal afxaali màndaxeem fixaal ya wa suurataha ak seen melo fa inna Ahmad naka Ahmad fi wasnihi ci màndaxeem yushbihu day nuru alfi'alayni yaari fi'al ya akrama te mooy akrama teral na wa ahsana ak ahsana rafetal na wa nahwahuma ak lu mel ne ñoom ñaar wa anna xomara ak naka omar xalamun xalam la tulaasiyun bi tulaasiyu mudakkarun bu di buñ góoral awaluhu bopp njalbeenam mad moomun lu ñu dàmb la wa taanihi ci ab ñaareelam maftuuxun lu ñu fataa la mu ne boo seetantelee lisim yi nga xam ne ñoo mujj ci misaal yi nga jàng ba weesu ko da nga gis ne misaal mu ci ne baat ba ci mujj moom xalam la amul werante boo bëggee xam leneen lu yees lu bokkut ak xam ne ay xalam lañ nag xanaa boo bëggee xam lu ëpp rek ne baat yi mujj misaal yi la jox ay xalam lañ kon da ngay ber yaari misaal yu ne nga xam ne xaraat suxaadu ak asnaytu xalaat suxaat da ngay ber yooyu yaar zurtu london ak jaat taalib min london nga ber yooyu yaar shahadna new york dahaba saayu ila new york nga ber ko muy wéy ba misaal yëpp jeex nga xam ne daal ber nga ñaar ñu ne su ko defee nag nga xool ñu wax la ci lu wees loo mën a jàpp saye boo jàpp ne yaari misaal yi nga njëkk indi soxaat moo mujj ci kenn ku ci ne te boo xoolee soxaat da nga gis ne xalam la boo xam ne jigéen a ko moom maanaam soxaat turu jigéen la wu siiw bi ñu ko waxee ci arab yi ñu xam ne turu jigéen la ba ca topp boo ko dee xool london moo mujj ci misaal mu ci ne london nag xalam la mooy baat la bu siiw bi ñu ko waxee ñu xam ko waaye nag cosaanoo ci làngu arab daa jox ci làng wi rek ñu ko ci tudd waaye cosaanoowul ci ñoom dañ ko tudde kon xalam boo xam ne ak làkk la mooy cosaanoowul ci làngu arab boo jàllee ci yaari misaal yi ci topp da nga gis ne ku ci nekk New York moo ca mujj te boo seetloo New York da nga gis ne ñaari baat la ñu boole ko muy benn tudde ko lenn New ab baat la York ab baat la ñu boole leen tudde ko dëkk boobu nekk ca États-Unis Amérique nga xam ne kon ñaari baat lañ boole mu soppi ko benn rek tudde ko lenn boo jaaree ci aay ci topp da nga gis ne ku ci nekk baatu Ousmane moo ci mujj fekk Ousmane la nga koy xàmmee rek mooy xalam la boo xam ne ak mujjam dañ caa dolli alif ak nuun nga xam ne Ousmane alif ak nuun nga ca mujj ndolleel na ca baat ba boo jàllee ci yaar ya nga xam ne ñoo ca topp da nga gis ne baatu Ahmad moo mujj ci kenn ku ci ne boo xoolee Ahmad nag day nekk xalam boo xam ne day nuru fi xal ci tolluwaay baat bi ñu ko itam ci melo wi ci boo dee xool ni baat bi tëggoo ndax ahmad boo ko jàkkaarleeg akram ba ahsan na nga gis ne ñoo tollooy araf te itam ñoo nuroog tëgg ndax ku ci nekk am saa ko tàmbali mu mel ne ku ci nekk dafa tëggoo boo defee ahmada mel dafa tëggoo af xala akrama noonu ahsana noonu nga xam ne kon day mel ne xalam la boo xam ne dafa nuru fexal ci ñi araf yi toll rek ñu yemle ko képp ku ci nekk di ñeenti araf bokk itam nag nu araf ya tëggoo nga xam ne ku ci nekk af xala la tëggoo ba ca mujj mujj nag mu yaari misaal yi mujj moom ku ci nekk boo ko dee xool Omar moo ci mujj omar nag la nga cay xàmme rek te war koo takk mooy xalam la boo xam ne góor a ko moom te yetti araf dong la ëpp ko te boo ko dee xool araf wa ci jëkk dafa maas maas ak lonk wa ci sës maas maas ka yet ca kaw kon li ngay takk ci xomar foofu mooy jàpp ne xalam bi góor la bu nekk ñetti araf boo xam ne ak njëlbeenam dafa am maas ak lonk araf wa sës ca njëlbeen nga maas maas ka yet ca kaw muy fataa noonu ngay njëkk xàmmee xalam yooyu takke ko noonu ñu doon laa jox àtte yi xaasi yi de yee ñoom sifaatul alaami ñooy meloy xalam ya allati ya nga xam ne fil am silati nekk nañ ci misaal yi wa isa baxasta boo gëstoo xan irabi haadihi l alaami walis irabu yi lay xalam raaytahaa nga gis leen fil misaali ci misaal ma al awali mi aji njëkk min kulli misaalayni ci bépp ci yaari misaal imma marfuatan benn ñuy lu ñu rafaa wa imma mansuubatan wala benn ñu lu ñu nasab wa fil misaal ci misaal ma asaani may aj ñaareel majruratan da nga leen gis ñu lu ñu jar walakin nag waaye yow isa ta amalta boo seetantalee xarakaati awaaxiriha maska yi seeni mujj raayta nga gis ne annaha naka ñoom rufihat rafaayeef na leen bi dammatin ci damm zahiratin guy aji fés wa nusibat te nasabeef leen bi fatxatin ci fataa zahiratin guy aji fés kabaqiyatul asmaa yi mel ne ya des ca lisim ya al uxra ya ca des walakinaha waaye ñoom nag fi xaalil jar ci waxtu jar wa lamtu jarra jareefu leen bil kasra ci kasra ga ba li fi nekk jurrat jareef na leen bil fataxati ci fata gannaaw bi nga xàmmee ni ngay ràññeele xalam yooyu nag say boo seet noo leen di ihrabe kon na ngay njëkk a takk ne mboolem xalam yi ni ñëwee ci biir misaal yi mooy dañuy def misaal yi ay ñaar ñaar boo xool nag misaal ma njëkk a ñëw ci yaar yu ne ma njëkk a ñëw moom xalam ba nga cee fekk benn mu rafaa rek mbaa mu nasab ko génn benn yoon boo jàllee ci misaalu ñaareel ma nag xalam ba nga cee fekk jar dong lay def moom léegi nag boo dee xool xalam bu ci nekk lan lañ ko maas da nga gis ne fuñ fi war a rafaaye moom la nga xamoon ci rafaaye dàmm dara soppiku ca moom rek moo fa nekk ki war a nasabe itam la nga xamoon ci nasabe fataa ba tey moo fa nekk dara soppiku ca na nga xamoon ci lisim rek bu waree rafaa te war a rafaay dàmm def ko bu waree nasab war nasabi fataa def ko loolu rek nga gis ci foofu fa lay bett kay mooy la nga xamoon ci fañ war a jare buñ dee jar doo gis kasara fañ waroon a jare kasara moom fataa nga koy gis bool bëti nga xool da ngay gis ne xaraat suhaadu moom suhaadu muy misaal mu njëkk mi suhaadu xalam boobu faaxin la fa dafa rafaay dàmm nam baaxoo rafaaye dàmm boo xoolee bu ñaareel bi moom dafa jar asnaytu xalaa suhaada xalaa moo ci nekk foofu nag moo lay bett la nga xamoon ci xalaa suhaadin jare kasara gisoo ko tey xalaa suhaada nga gis bu ci toog boo nee surtout loon dana misaal mu njëkk mi baatub london boobu day mafulum bi nasab waaye la nga xamoon ci nasab muy nasabi fataa dara lu lay bett amu ci ba tey moo fi nekk waaye ma ci topp muy mu ñaareel ma nag mu jaa taalibu min londona foofu lay bett min jaarafu jar la te néewuñu min londo nin min londo nin déedéet dañu ne min londo na xam ne foofu fataa moo fi nekk kasrawuñu bi ci topp boo xoolee shahadna niyoo yor ko ba foofu bisi la moom niyoo yor ko ji daal na sawi fataa loolu bettu la waaye nag boo ne ilaa niyoo yor ko nag néewuñu ilaa niyoo yor kin ilaa niyoo yorka lañuy wax loolu moo lay bett boo xoolee yépp nag noonu lay mel fu fi ñëwee war a jar rek la nga xamoon ci jar moom nekku fa mooy kasara nekku fa fataa moo fa nekk way saa rajaata boo delloo rajaxa danay jàggati nag waaye boo ko defoon way saa arjaata ndeem delloo nga wala way saa rajaata an nasara maratan aw yoon uxra weneen wajatta nga fekk ne annal alaama naka xalam ya jamiha mboole seen lamtu nawoon tanwine fu leen wa annaha ak naka ñoom munihat aayef na leen mina tanwini ci tanwin aw wala nga ne munihat aayef na leen mina sarfi ci soppi li anna sarfa ngir nag a sarfu wat tanwin ak tanwin bi ma ana nekk na ci maxnaa waahid mu di mel na mu ne nag am na loo xam ne moom na nga ko ci seetlu muy bërëbu rafaa ba ak bërëbu nasab ba ak bërëbu jar ba ñooyemoo maasuñu yaari maas ko def lu ñuy wax tanwin dañoo bàyyi rek benn maas ko da nga ne xaraat suhaadu néewoo xaraat suhaadun da nga ne asnaytu xalaa suhaada néewoo asnaytu xalaa suhaadan xalam boo ci xool daal fañ ko maas kenn maas ko moo fa nekk kenn tanwinu ko kenn def ko yaari maas ko loolu nag mooy xalam yi fool fekk dañuy bañ ku leen tanwin mbaa nga dañuy bañ ku leen soppi ndax baatu asarfu ak at-tanwin ñoo bokk luñ ci jublu te ñoo jublu rek ne xalam yi mel ni dañuy bañ ku leen maas yaari maas ko ñàkk gaa taara ñàkk gaa daaf du tax nga maas leen yaari maas ko def fa rek maas ga fa dëkk waaye bul ko def yaar alqaidatu yum naaw def na tere alxalamu xalam mina sarfi ci asarfu ay li mu ci namu at tanwini tanwin waaye yu jarru te dee fi ko jare bil fatxati ci fata niyaabatan mi aw wuutu moom fata anil kasrati wala kasara awalan ida kaana bu nekkee moom xalam mu annasan di jigéen taaniyan ida kaana bu nekkee ajamiyan di ak làkk taalisan ida kaana bu nekkee mu rakkaban di luñ toggale tarkiiban ak toggale mas jigéen wi ko jaxase raabian ida kaana bu nekkee masidan di lu ñu dolli fii ci moom alifun alif wa noonun ak noon xaamisan isa kaana bu nekkee xalaa wasnil fi'li ci màndaxim fi'al saadisan nag isa kaana bu nekkee mudakkaran di lu ñu góoral tulaasiyan tey tulaasiyu madmuumal awwali tey lu ñu dàmm njëlbeen maftuuxal saani tey lu ñu fataa ab ñaareel kon takk-takk mooy li ngay yàgg a dégg ci booy jàng naxu ñu naa nàngam day mam nooxun min a sarf mbaa ñu naa day maalaayu sarif ci yenn wax yi nii dañ caa jublu rek baat boo xam ne du nangu ko maas yaari maas ko da nga ciy bàyyi rek génn maas ko te it su waree jar doo ko jare kasara da nga koy jare fataa lu may nag mu taara mbaa mu daaf li fekk taara wu daaful rek moom du nangu nga jare ko kasara da nga koy jare fataa te it nag ma bul ko tanwin benn yoon kon biñ ne almam nooxu mina sarfi dañoo jublu almam nooxu mina tanwini moo nga ne mina sarfi ñooye moo fi ñu ci tolloogu nag mooy xamal ne la xalam moom dana koy doon lay tax mu doon ko nag mooy mu doon xalami jigéen ni ki soxaat wala mu doon xalam bu joox ci làngu arab rek wa arab yi moomuñu ko ci cosaanawul ci ñoom ni ki London ji nga gis foofu wala muy xalam boo xam ne dañoo boole ñaari baat tudde ko lenn ñaari baat ñu sopp ku turu lenn ni ki New York ko wala Sénégambie ak baat yu bare bare ba ca topp mooy bu fekkee xalam ba dañ caa yokk alif ak noon ni ki xusmaan ak marwaan ak yu ko nuru juróomeel ba mooy bu fekkee xalam ba dafa tëggoo ni fixal di tëggoo yemook fixal tolluwaayu araf bokk itam nu ñu tëggoo ci boo xoolee araf ya nañu maase ak nañu tëddee ni ki ahmad tolloog akrama mbaa ahsana ci boo dee xool ni araf yi toll mu yent ak ni ñu maase araf yi bi ci mujj nag mooy bu xalam ba doonee xalami góor ba noppi doonee ti araf te arafu njëkk wa maas masque ak lonk arafu ñaareel wa maas masque ci kaw mën ngaa takk ne kon xalam su mel nii rek daal di bokk ci almamnuh min as-sarf as-sifatu mooy almamnuatu ba di buñ aaye min as-sarf ci sarf am na xeetu sifa boo xam ne tey doon lu ñuy bañ ku ko maas yaari maas ko tey boo ko dee jar da nga koy jare fataa te bañ koo jare kasara njëkke joxe misaal yi alwaladu al amsilatu alwaladu xale ba xat shaanu aji mar la saqaytu nandal naa wala dan ab xale xattu shaana buy aji mar laa tabu xal bul nay xalaa xattu shaana ci aji mar anta yow asbaqu yaa gën a raw min nii ci man lam yëkku nekkut xayru ko gurl yow asbaqa di gën a jiitu mbaa di gën a raw min nii ci man lasta déet yow bi asbaqa ngay gën a raw min aliyin ci ali waqafa taxaw na junoo dun ay soldat mas naa mbir mu ñi ay ñaar-ñaar taqaabaltu tolloo naa wala jàkkaarloo na maag ma junoodin ànd ak ay soldat mas naa yu di ay ñaar-ñaar jaa dikk na al awlaadu xale ya tulaasa mbir mu ñuy ay ñett-ñett nazartu xool naa ilaa awlaadin jëm ci ay gone tulaasa ñu di ay ñett-ñett daxala dugg na al madrasata école ba banaatun ay xale yu jigéen uxaru yeneen maraltu romb naa bi banaatin ci ay xale yu jigéen uxara yeneen mu jàll si ci albaas ida alxayta boo sànnee nadratan ab xool ilal am silati jëm ci misaal yi assaabiqati aj jiitu raayta nga gis ne annaha naka ñoom tash tamil danañu làmboo alal kalimaati ci baat yi ngay bëgg a dégg te mooy xattu shaan wa asbaq wa masna wa tulaasa wa uxar man nga ne wa tulaasu wa uxaru waaye nag mën nga ne booba dalee ci xal kalimaati xattu shaana wa asbaqa wa masna wa tulaasa wa uxara fa xat shaanu xat shaan te dullu day tegtale xalaa zaatin ci jëmm muttasifat njudi aji melowoo bil xattasi ci umar wa asbaqu asbaq te dullu dana tegtale xalaa zaatin ci jëmm muttasifat njudi aji melowoo bi siyaadati ci ëpple ga xalaa xëyrihaa ci kurlu moom fi soppi ca raw ga ndegam nee na boo xoolee misaal yi da nga gis ne misaal yi moom baat yi nga tudd ña nga ca biir bi baatub xatshaan ak baatub asbaq ak baatub masna ak baatub tulaas ak baatub uxara boo leen dee teqale benn benn nga gis ne xatshaan mi nga njëkk a wax day wane jëmm ak la melowoo te mooy jëmm ju mar jëmm joo xam ne la melowoo yooyu jamono moo di ak mar baat ba ca topp muy asbaq boo ko dee xool mu wane jëmm ak lu ëppalee keneen ci melowoowa ni ki asbaq li ñuy wax asab xuraw buñ ne anta asbaqu min nii da nga maa féete kaw ci asabqu raw googu buñ ne woon anta asxaru min nii da nga maa raw ci ak ngone mooy yaa ma gën a gone buñ ne woon anta akbaru min nii akbar day wane ne yaa ma ëppale ci ak mage muy kon yaa ma féete ak mag xam ne kon kooku loolu lay wane ëppale ca melow ñi wax wa matna matna wa tulaasu ak tulaasu kilaahuma képp ci ñoom ñaar ya dullu dana tegtale xala asiyaa ci ay yëf it tasafat yoo xam ne melowoo nañu bi annahaa ci naka ñoom ruttibat toftaleef na leen tartiban ab toftale xadadiyan bi ko jug wàññi xaasan bi aji ràññi ko li anna maxnaa waqafa junoodun masnaa ngir naka maxnaam waqafa junoodun masna muy annahum naka ñoom waqafoo taxaw nañu kulus nay ni ñëpp ñaar minhum ci ñoom maxan ñoo nekk di ànd wa maxnaa jaal awlaadu tulaasa muy annahum naka ñoom jaawoo dikk nañu te kullu salaasat ñëpp ñett rek minhum ci ñoom maxan nekk nañ ànd mu ne boo seetloo nag baatub tulaas ay ñett ñett ak bu ko jiitu muy mas naa ñaar ñaar da nga gis ne dañu wane aw melo ci wàllu wàññi maanaam xeetu wàññin woo xam ne wàññi ba dafa tegtaloo tegtaloo bu ràññikoo ràññikoo doon ay ñaar ñaar mbaa ay ñett ñett mbaa ay ñeent ñeent mbaa ay juróom juróom ba ci ay fukk fukk waaye moom daal te lañu indiwee wàññi ba rek wane na ne wàññi la boo xam ne dafa ëmb ay yëf yu tegaloo tegaloo bu ràññiku ndax benn ñu ne ca nañu mel mooy doon ay ñaar ñaar mbaa ay ñett ñett mbaa ay ñeent ñeent muy wéy ndax bi nga nee waqafa junoodul mas naa li muy tekki mooy soldaaye dañoo taxaw ay ñaar ñaar rek boo nee jaal awlaadu tulaasa day wane ne xale yi ñëw nañu ci lañ ñëwee nag dañoo doon ay ñett ñett ñett day ñëw ànd yeneen ñett topp ca doon ay ñett ñett ama kalimatu uxar fata dullu dana tegtale xalaa zawaatin ci ay jëmm muxaayirat ni aji wutanteeg li xëy dixaa ñeel yu dul ñoom lu ma ne nag uxaru yeneen jooju baa boo ne woon aaxaru kaneen mu dellu ci góor wala uxraa keneen mu dellu ci jigéen te wane rek ne bu dee mufrat mi am na geneen góor mbaa leneen lu góor lu bokkut ak la ñu xamoon wala bu dee uxraa jeneen jigéen mbaa leneen lu jigéen leneen lu bokkut ak la ñu xamoon bu dee jam su andee nag uxaru nag muy jamxo bi muy yeneen nag yeneen yu jigéen yu bokkut ak yeñu miinoon xamoon leen wa min zalika ci loolu yazharu lay feeña la ka ñeel la an na kulla kalimat naka bépp baat minal kalimaati ci baat yi assaabixati aji jiitu te dullu dana tegtale ala sifatin ci aw melo ñun la ko waxee boo ko toppee da nga gis ne baat yi bu ci nekk day wane aw melo wane nga muy wane aw melo moo tax ñu koy tuddee sifa waxinda te amuli sifaati fa seetantal melo ya maratan yoon uxra weneen tara da nga gis ne anna xatushaan naka xatushaan xalaa was ni fanlaan nekk na ci màndaxim fanlaan wa anna asbaq ak naka asbaq xalaa was ni avant la nekk na ci màndaxim avant wa anna masna ak naka masna wa thulaasa ak thulaasa lafzaani ñaari baat lañu lil xadadi ñeel lim ba xalaa suuratin ci aw melo xaasat muy aji ràññiku wa misluhuma seenum kem la